313 digital nuyu nañu leen bu baax a baax a baax di leen dalal di leen baalu ak dofu maam Khalifa Niass moom ngeen jàkkaarloo nii le mara de Sonko ba tey tur baa ngi fi wala. ah bien sûr. Hmm. <laughs> mi ngi fi kay. daa foog bu ngeen faloo rek da ngeen di jàll ci ci yeneen. <laughs> ah non baatu baatu sëriñ moom du fi jóg. Hmm. te turu Sonko it mi ngi fi ba tey. Hmm. kon cheikh bi nuyu nañu la bu baax a baax di la baalu àq ci julli bii ju jóge te di la dalal ñoo la yee nag daa mel ni sonn nga nag. waaw ñu ngi lay fay Vito di nuyu téléspectateur safoo di seetaan 313. Euh, mhm. digital di ko jaarale ci xarale yu ute ci même bitim réew. Mhm. Euh, dañuy sawar ci toog ak yow waxtaan ci ñett ponk. Mhm. benn bi di actualité génnul njëriñu réew mi. benn bi aussi tamit di actualité boo xam ne aussi tamit euh, njëriñu askan bi yëpp la. benn bi aussi tamit di li nga xam ne mooy xam-xam. Mhm. luñ dond jàng ko te olof Ndiaye nee na lépp loo dondu mu dëgër góorgóorlu ci mu dëgër. Mhm. Euh, ñett yooyu lañu ñu bëgg a ci benn paquet kenn ku ci nekk jël ci sa wàll boo ko dajee muy njëriñ ci yow. Mhm. Euh, ba ci des it ñuy baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq ci tabaski bi ñu bàyyi ko di am mbégte kontaan te toogaat jàkkaarloo waat ak sénégalais yi ndax euh, gënoon na fee métti ñu daan jàkkaarloo ñoom ñu ñuy déglu. kon si yàlla indee. liy nuroog ndam te nekkagul ndam pour pas liy ndam te nekkagul ndam parce que baatu pouvoir dafa neex ci déggin waaye dafa jafe ci gisin. Mm-hmm. parce que ñi la ñi lay xalab yaa leen jiite ñi la bëgg di lay tàgg yaa leen jiite. Mm-hmm. te ñaar ñooñu kenn ku ci nekk boo ci comprendre cër bi mu am ci yow rek day xaw a métti bu boobaa sa jiite aussi dafay xaw a maanaam neex a critiquer. Mhm. yàlla bu ñu daanu ci pees boobu. ñu ngi lay fay weto. Euh, démb euh, actualité bi dafa bëre nag <clears throat> moo tax xam naa ne ñiy seetaan nañu euh, yokk seeni volume bu baax te du seen connexion gën a baax. Mhm. ndax li ñu li ñu war a càmbar tey dafa bëri. Mhm. waaye démb dañoo toog ba timis. defe naa heure gee rek jékki-jékki gis ay photo Bassirou Diomaye Faye mu nekk ci biir géej gi jël hélico. dem xool pétrole bi. photo yooyu nag viral carrément bi nga gisee photo. président xam xam naa ne yow ñu bëri sax xàmmeewuñ ko bu ñu xoolaatee bu baax gis ko mu dugal ko ci page am la ñu soog a xam ne kii président la. yow bi nga gisee photo yi démb ban réaction nga am. waa réaction bi may njëkk am mooy ku xamul Ousmane Sonko la photo yooyu di jaaxal waaye ku xamul aussi tamit président Diomaye Diakhar Faye la jaaxal pourquoi ma jiitee ci. ku xamul Ousmane Sonko la loolu di jaaxal. Euh, mooy Ousmane Sonko képp kum jiital coono yi nekk ci yaramam bi bëgg gi mu bëgg Sénégal natt na ko ci yow ba xam ni tollu nga nu mel. Mhm. mu jiital la ci côté booba. kon dañuy wax rek njëkk loolu jërëjëf Ousmane Sonko jërëjëf Ousmane Sonko pour pas parce que ni Pastef tollu ay cadre nekk fa. mu sepp fa benn jëmm joo xam ne moment bi mu koy seppi jafe-jafe yi mu doon dund moom la ko di dund. Mhm. ñu bokk même prison boo xam ne dañ leen a tooñ dugal leen fa. mu romb ñu bari ne fii 111 bii di Bassirou Diomaye Diakhar fay qualité yii ak yii ak yii mu ngi ci moom sama sañoon ñu def lii ak lii ak lii. Mhm. ci biir loolu mu teg stratégie yu bari mais ci biir stratégie yu bari yoo ñoonu fexe na ba seppil ñu Bassirou Diomaye Diakhar Faye wax ci moom qualité yoo xam ne qualité yi ñu ngi koy gis par benn benn. Mhm. parce que imagine toi lu mel ni président de la république. Euh, bu njëkk lañ ci xamaan mooy noos. Mhm. toog ci oto ay motard du la weem weem ngay joxoñ di commandé. Mhm. kenn ku ci nekk da la indil ay projet yoo xam ne sa intérêt personnel moo ci jiitu njëkk réew mi. yow aussi tamit président ba képp ku génn xiixaan wax lu ko lu la naqadi. au lieu que nga xool wax jooja ndax njëriñu Sénégal lañ ci déedéet waaye naqadi na ma rek nañ jàpp kooku dugal ci kaso gi. kii nag premier objectif am mm, maanaam li yem ni tabaski. ñaata personne lañu wax ne grâce nañ leen bàyyi nañ leen ñibbi seen kër. ñu ne déeta waay mu sol yére boo xam ni bu tàngoor di reyee tàngoor mën na ko caa mhm. waaye daf ci jël lépp loo xam ni. maanaam luy nuroog star la wala luy nuroog noos la wala yu mel noonu mu teg ko fële wan ñi nga xam ne dénk nañ leen lu jëm ci pétrole bi. Mhm. ne leen tey man président de la damay ñëw xool si ko sama bopp. du dégg déggin kese laa ci am mais ci biir xool si ko ba sax damay sol toni yi nga xam ne ñi nga xam ne ña ngi koy liggéey toni yooyu lañ sol la ñuy sol. kon am na misaal bu muy bëgg a joxe na nga xam ne ñu ngi ñu ngi féetoo foofa. Mhm. mooy lan mooy nag ah alal jiikat li ñëpp bokk la. te lu ñëpp bokk nag ñëpp dañ cee war a yem. Mhm. président de la république bu solee casquette booba solal na ko tout le mhm. kon sénégalais yëpp am gën nañoo am xel moo dal ci Bassirou Diomaye Faye. Mhm. li may wax toujours nag ne nit nag boo ko xamul juge ko day jafe boo ko xamee aussi tamit ko day jafe. ñaar ñaari ñaari mbir yu doy waar la. nit boo ko xamul juge ko day jafe boo ko xamee juge ko day jafe. pourquoi pas boo ko xamee juge ko day jafe parce que boo ko xamee lépp loo wax ci lu baax ci moom ki xamut. bu la weddee werante day dugg. Mm-hmm. ki xamul aussi tamit heure bu waxee ci ki xamut dana wax lu mu xamut te ki xam heure bu waxee ne non non nga li nga waxee waaj melut nii werante dugg. Mm-hmm. kon muy des lan muy des ñu yoon ni yàgg heure bu ñu yónnee yàgg rek kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar ñooñu maanaam dëgg dana ñëw indil la raison yoo xam ne da nga sa gémmiñ. Mm-hmm. yaakaaruma woon lii parce que ki yaakaaroon ay mbaax ci Diomaye Faye heure bu dëgg ñëwee. dana jël lu weesu lam yaakaaroon teg ko ci teg ko ci jomaay ne yaakaaruma woon ne mbaax gi mu ngi ci moom mhm. yaakaaruma woon ne patriotisme gi mu ngi ci moom yaakaaruma woon ne intelligent bi mu ngi ci moom yaakaaruma woon ne aussi tamit bëgg réew mi mi ngi ci moom mhm. ki bañoon jomaay aussi tamit toujours fi mu mujjee mooy bañu bëgguma sonko waaye bëgg naa jomaay mhm. te wax dëgg neex yàlla nag kenn mënul bëgg ilimaan bañ noddukat ba mënul nekk parce que noddukat ba mooy oot na kaay leen ñu julli Iliman Sonko di mën a julli. Mhm. noddukat ba nag moom mooy jamaay waaye dëgg dëgg Iliman di mooy Ousmane Sonko. Mhm. Mhm. mënoo bëgg ginaar bañ cuuji. mënta ne. <laughs> mënta ne li mënoo bëgg ginaar bañ bañ cuuji ki ne nag. ayca beneen actualité euh, wàllum wàññi gi. wàññi njëg gi njëgu mburu gi euh, ak yooyu. Ah, xam nga. Olof Ndiaye def ni. gumba bu ne la kaa ñu sànnantey xeer. joggi nay doj. Euh, fi may jiite fi may njëkkee rek di féliciter El Malick Ndiaye. Mhm. ci geste bu rafet bi mu def jëmale ko ci askanu Sénégal. Mhm. xam nga président Macky Sall président Abdoulaye Wade Abdou Diouf euh, ba Senghor. Mhm. dafa am luñ manqué woon mooy ay ministères yoo xam ne dañoo dañoo nekk patriotisme. nguur yàlla du ko jox ko bëggul réewam. dëgg la lu may contre contre Macky Sall. am na toq bu ndaw bu bëgg Sénégal parce que euh, baatu nguur. dafa diis. Mhm. yàlla bu koy jox da koy sepp ci ay junney junney nit. Mhm. tànn la ca yow ne la kaay nga toog yow koy jox. Mhm. xoolul baax nga xoolul boot nga waaye xool na ne war ngaa mën a jëriñ sa réew mi ma lay jox donte tarfatal ay ne lu ndaw. léegi mu des nag dafa amul ay ministre patriotisme ñi ma wax nii ñëpp. amuñ benn ministre patriotisme. parce que ñi ma wax ni ñëpp jamono booba ay car wala ay biche yoo xam ne ñi ngi ñi ngi daw ci réew mi état moom ko mi woon. tey ku mel ni Macky Sall su amoon ministre bu mel ni El Malick. Mhm. xëy na ay feem du génn jëm ci transport. Mhm. parce que nag euh, de bu demee ba euh, góoru xumb mi nga xam ne mooy président euh, transport yi. Mhm. taxaw ne dañoo juum nangu ay itam am na lu tax. li tax nag moom laay indil askanu Sénégal ñu bàyyi xel ci ministère yi ñu fal ku ci nekk pàcc bi. bul fàtte bu yi amaan ñoom ñi yor wàllu transport beeg yooyu dañuy profité ci askan bi. Hmm. Kaolack gi a xam ne fa laa dëkk fa laa mën a jugé bu fekkee bii si 3000 lañ fa daan yebe wala 2000. Hmm. dañ koy mujj dible yóbbu ko 6000. Kaarang gi ma dëkk 6000 ñu yóbbu 10000. ñu yóbbu nga dégg ko kon léegi yooyu nag bu fekkee dafay am. Hmm. état dafa war a am lum taxaw seetlu. askan wi am luñ taxaw seetlu ñu nekk ci digg bi muy transporteur yi am luñ taxaw seetlu. bi ci jiitu mooy avant El Malick ñëw il faut ngeen wàññi yërëm askan mi nangam nangam bref. Mhm. ñu jàll jàllaat jàllaat ba bañ na ba jour biñ defee li mu def ñëwaat na wax ak ñoom. Mhm. waxuñ nu nu li tax ma ne la gumba bu dëggee xeer bu bu ne la kañ saanen kañ dëgg na xeer. Mhm. mooy El Malick dëgg na fu dëgër ba pare soog di ñëw wax ak ñoom. mais ñoom mënuñu wax xam li El Malick naroon ak li Pastef naroon. ba li li xew-xew li am am parce que loolu benn jàngale la buy wane transporteur ne leen Sénégal. am nañ ay oto yoo xam ne askan wee ko moom bu njëkk li daan am mooy président transporteur yi bu yu mel nii amaan mhm. moom daf daan xool intérêt personnel am du xool intérêt général yoonu lee ko dem wax ak bi nga xam ne moo yor transport ministre bi boobu moom tamit xool intérêt personnel am du xool mhm. ñoom ñaar nag kenn kii mu ngi xool nu matte ministre bi ministre bi mi ngi xool ni matte président bi mooy lan mooy ah gars yi nee nañ dañu def nangam nañ leen neexal jox leen ndàmpaay na ak nangam ñu bañ a geref parce que bu ñu gerefee nangam te am nga ay oto yoo xam ne Sénégal mën na cee mhm. geref du am mais amoo woon xam-xam bi moo lay wan ne la ministre yi fi mas a jaaree ay cuune lañ amuñ xam-xam bu ñu réew mi léegi yii yëpp am bu président joxe exemple cinquante million ne nañ ko ndàmbaay dawal ko oto yi ministre bu rocc benn vingt million ou trente millions yëkkati vingt millions bi jox président bi jiite oto yi président bi jiite oto yi rocc benn dix millions teg ci comptam nar a séddoo gars yi des foofu encore léegi nag après bu nekk xëccoo seen biir ba tabaski gën a jege ñuy gën a yokk paas yi askan bi di gën a dee ministre yi nag dañoo ñëw jiital intérêt Sénégal mm-hmm. mooy am nañ ay bis yoo xam ne bu jógee fii di dem biir na leen ne carburant bi muy lekk ñuy taal climatiseur yi bénéfice amu ci mm-hmm. prix yi ñu def oto yi bénéfice mënu ci am ba pare ëlbatiku teg ak boo xam ne nii loi moo may militaire ne ak fu militaire te nekk képp ku ko attaqué am na droit génn pistolet défendre boppam rey la ak koo mën doon léegi nag mu ne ñu ne bii si kon nañ ko jox nañ ko jox militaire Sénégal moom lépp lu muy dugg nay sànni xeer nay saaga ne nang waaye óor bu gisee fetal génn mhm. mu xam ne bal bi ci kawam la jëm dana tal leneen surtout nag moment tabaski bi nga xam ne bu fekkee si nga sant da waaj pour lekk yàpp mhm. ñu jox yëfi militaire ñu dawal ko lii la ñuy xaar ci maanaam ministre bu nekk mhm. nga demee ko ci lu jëm ci wàllu mbay mi ma buuba lim def dafa extraordinaire ban ministre lañ naan fal muy wàcc ci tool yi xaaxaam yeeg dëj yeeg yu mel noonu di ko jam mhm. ah muy xool jafe-jafe yooyu nag bu fekkee dañ koo am te exploité wuñ ko sénégalais yi xam ne am nañ njëriñ gi maanaam patriotisme bi ñu daan oote dafa des. Mhm. te Pastef yàlla daf ñoo may lu mu mayul benn parti mooy ministre yi ñu fal yëpp kenn ku ci nekk boo ko jëloon mën naa jiite réew. Mhm. ministre yëpp nag kenn ku ci nekk ba la Ousmane Sonko Sonko tànnee. jiite la rek mën ngaa jiite réew. Mhm. ba pare nag ah, yow mi mën a jiite réew moom am nga 1000 personnes yoo xam ne ñu ngi ci banc bi di xaar pour football comme yow. heure boo defee benn fët bu ndaw rek jàppal na sa morom bu duggee dana def loo xam ne adduna bi dañ koy tàccu. Mhm. parce que maanaam lu ñuy concours ñun du maa la ëppalee milliard maa la dàqale oto maa la nangam lu ñuy concours mooy maa la gën a wane patriotisme. Mhm. maa la gën a bëgg réew mi maa la gën a liggéey maa man la sénégalais gën a apprécier gën a wane compétence boo xam ne ni sénégalais bi gis nañ seen bopp. bu njëkkalee li ñu doon xëccoo mooy maa ngi génn Matar yaa ngi may topp ñu ngi may taggal diwooy sa ndey diwooy sa baay ma jël alal ñëpp ñëpp bokk di ko jox kii di xañ kii mooy lan mooy di ko jox koo xam ne mi ngi lay tàcc ko fecc bokk parti di ko xañ koo xam ne nii bokkul sa parti te sénégalais la comme kee ñun nag ñu ñëw ne Sénégal sénégalais égal sénégalais plus sénégalais. voilà mbirum wàññi gi. mbirum wàññi mi euh, danaa ci ñëw ci benn côté gis nga ñi nga xam ne lu jëm ci wàllu mburu bi la imagine toi yow naka la ñuy waxee ne mbir mii mi ngi jar exemple fa nga xam ne fa lañ koy jëndee six mille francs mhm. ñu ñëw déclarer vingt vingt vingt deux mille francs exemple ci biir vingt deux mille francs yooyu état am yërmande lam doon lam la doon teg ci taxe ci bato pour mu indil la mbir mi bele bi wàññi na ko mhm. lam doon teg sa dédouanement bi wàññil na la ko yow mi nga xam ne yaa indi mbir mi nga ne ah man kat mënagumaa wàññi ñi nga xam ne jaay leen mbir mi fii Sénégal ñooñu ne mën nañoo wàññi loolu enu na maanaam mhm. est-ce que baax li ma wax mm. ñi indi yëf yi nee nañ ñoom suñu wàññee dañuy perte mhm. te ñiñ koy jaay ñoom nee nañ ñoom suñu wàññee duñ perte mm. jëndkat bi jëndkat bi nee na moom. bu wàññee du perte su ko wàññee du perte. waaye ki koy jaay mais ki koy jaay moom nee na bu wàññee perte. su ma déggee kay jaay en gros. nee na day pert waaye kiy jaay détail. moom nee na du perte lu mën naa ne xiyaasu. Mm-hmm. léegi état bi ne leen d' accord léegi ñun liñ leen oo nii dañ koo saytu ba mën leen wax ne leen man ngeen a wàññil askan bi mhm. te sax dañoo am yërmande ci yéen ñu koy indi pour bu ram ndànk-ndànk moo tax ñu ne leen wàññi leen ci juróomi dërëm mhm. mais nag tëbuñ rek ne leen wàññi leen juróomi dërëm dañ ne leen wàññi leen ñetti dërëm ñu gis ne ñetti dërëm mburu mu nekk boo ko ca wàññee pour dem ca bitik pour ñu delloo la ay ay ñaar dërëm ak yooyu mhm. jafe na ci réew mi ñu ne la wàññi juróom waaye bu ñu wàññi woon fukk ak juróom sax du lool lor terewul ba te yaa ngi am li nga war a am parce que tey bele bi boo koy dugal turu bele lay doon bu ñëwee mën naa doon ay qualité qualité yoo xam ne bokkuñ ak mhm. fëriñ bi ñu ci soxla fëriñ bi dara ñal la mhm. léegi yii yëpp nag yow nga ne yow mi yow mi yor euh, euh, bele boobu mhm. nga ne yow patriote patriote nga bëgg nga sa réew da ngay dem sa réew mën na la lu mënalul beneen beneen doomam mooy nangul la nga dem business yi jëndi mbir indi ko mu couvrir la accompagner la nga génne ko ci teeg bakkan nga yoreel ko encore ay dédouanement yoo xam ne fayagoo ko mu nangul la nga génn dem jaay ji ba pare ñëw fay ba pare nag yow nga ne mënuloo sa doomu réew wàññil ko benn juróomi dërëm te juróomi dërëm boobu ngay wàññi jàppal yow lu mu gàtt gàtt gañe nga gañe nga 450 ci kaw ci ci kaw benn bopp bu nekk. léegi nag bu ñu ba xam ne état bii sévère la indi te fa mu jëm ak ñoom baaxul ñu reculer ne waa d'accord nañ mooy lan mooy ñàkk pexe. kaset ci lañ d'accord beneen bi ci def am na ñuy wax Sonadis xewoon fi ñuy sàkku ci état bi. mu mm-hmm. xewlaat ko fi. Mm-hmm. pourquoi pas Omar Ibnul Aziz. Mm-hmm. bi mu ooyee commerçant yi nekkoon biir réewam wax ak ñoom na leen nañu waxtaan askan wi sonn nañ. Mhm. néew gi doole yi seen loxo jotut ci lekk yu neex yi. te ñi nga xam ne ñi ngi am ñu ngi leen di santaas seeni doom. Mhm. ci lekk yu neex yi ak tëddukaay yu neex yi yu neex yi. ñu bon ñu ngi ciy profité di jëflanteeg ay doomi gor. te ay jigéen di leen lor te mënuñoo téye seen bopp. léegi est-ce que duñ waxtaan ngeen dimbale ñu ngeen wàññi dund bi la ci état mën a jënd jënd ko la ci état mën a jënd ñu wàññi ko. ñenn ñi nga xam ne bëgguñu woon maanaam réew moo ma dox dañ na d'accorduñ ci mais borom xel mu rafet euh, dafa ñëw bu ñuy wax Omar Omar Ibnul Faris. ne ko mm-hmm. yaa Omar mu ne naa mu ne ko kaay ma xelal la. mu ne ko loo xelal mu ne ko xaalis bi nga xam ni état bi ñoo ko moom nañ ci créé suñuy bitiku bopp état bi am na ay gëlëm ak ay lépp war a mën a dem di jënd ji fa commerçant yi di jëndee nga créé ay commerçant yow état say commerçant bopp yoo xam ne. maanaam duñ yor turu ministre waaye roor ministre la ñuy la ñuy la ñu doon léegi nag buñ demee jënd ji lañee ñee di jëndee buñ ñëwee nga nga wàññi leen maanaam tey boo booy booy booy def saako bu ne nga dédouané ko exemple mille cinq cent mm-hmm. nga defal sa commerçant yi bopp yi saako bu ne nga dédouané leen ko mille francs cinq cent booba nga ciy dagg delluwaat askan wi nga créé say bitigu bopp prix boo fixé bitig yi wuñ koo jaayee sa bitig yi nga créé jaayee ko oor bu ko bitig yi nga créé jaayee rek par la force bu yàggee ñoom seen marchandise dafay yàgg te kenn dootu ko soxla te kenn dootu demati ci ñoom. Mm-hmm. ñu créé la mu jàll. borom bitig yi réunion ne Omar daf ñuy fond nangam dara bañ sonnee dañoo mujj wàcc ñoom ñoo mujj di neexal Omar te Omar leen doon neexal. Mm-hmm. mais nag bu fekkee dafa am lu ñu fi créé woon lu ñuy wax Sonadis ñu gisoon ci njëriñ. Mm-hmm. njëriñ loo xam ne manaam njëriñu askan wi la. la koy folli mooy système bi ñu waxoon ne moo fiy dañ système boobu moo di moo di moo dindi bitigu Sonadis yi amoon fi. parce que boo demee mag ñi ko fekkee woon doon la nettali histoire njëriñ la woon ci état bi ko créé woon. Mhm. mais bu fekkee système bi nag dafa dem ba ba ba man ba man bitig yooyu ba lor ko ba génne ko fi ci ay juróomi nit yoo xam ne ñooy dajaloo rek. Mhm. yaa ngi dégg di xool seen i seen seen i taux de taux de commerce seen i taux de euh, riche yaa ngi dégg nangam nangam ñëw bëgg toog ci kaw bopp askan wi di yokk prix yi ñu mu leen neexee. yaa ngi dégg état bi dafay jaar na moom tamit mu tegal mu teg système boo xam ne du xeex ak ñoom du xuloo ñoom te fa lañ fa lañ na a jëm ak ñoom. ñu gaaw reculer waat reculer googu nag dañ ko soxla ci tous les côtés. ci côté du du côté bele kese ci côté ceeb parce que tey ceeb bii nii soo toogoon a tey koo xam ne mi ngi xam na dëgg dëgg dëgg port ceeb ni muy génnee. mu wax la ne la kilo ceeb war naa mën a jar fii deux cent soixante quinze ba trois cent pas pas six cent franc da ngay dese gémmiñ ne lu tax te yenu na maana mm-hmm. lu jógee cent cinquante jëm ci deux cent. dugal ci 200 ram ba 600 kon buñ ne la war naa man a jaraat war naa mën a jaraat 275 war nga koo gëm. Mhm. te dara waralu ko loolu ay commerçant yu dajaloo dem jënd ceeb. créé seen i saako ceeb bopp saako ceebu bopp laa la wax de créé seen i saako ceebu bopp kal ceeb ba fañ ko war a kal summi ko solaat ko non parfumé bi am na ñoo xam ne dañuy dem baylu faux parfumé ñëw sol ko comme parfumé ne parfumé la yow ma koy lekk loo ca mën a am rek mooy saako parfumé lañ ci problème yooyu dafa bëri ci biir port bi xam nañ ci yu bëri ay am na sax ay commerce commerçant yoo xam ne seen i saako ceeb seen i butéelu diwlin seen waay sa waay déggoo li ma la wax butéelu beurre seen i potu beurre seen i la wax mhm. may ñu tuuti rek yuuxu dana juf fu ñu ko foogeewul <laughs> waaw ñaar moomu na am da nga yem ci commerce bi nga commerce yémoo ci commerce bi nga dem tëggi làmb mhm. mais nag jël huit tànk teg ci mbaam ne ñoom ñaar ñoom nañ dawandoor même allure mënul ne mbaam moom lam daan daw lay daw rek gëlëm nag moom aliram mën naa yokk mën naa wàññeeku. Mm-hmm. mooy lan mooy commerçant yi nañ yem ci commerce nangam yi yem ci nangam nangam yem ci nangam. Mm-hmm. parce que nag boo gisee réew du dox nam war a doxee nit bu ñëwee jël xalam sol la ko yow maanaam lam lay sol intérêt personnel am rek la ciy xool du xool intere réew mi. Mm-hmm. te loolu tànk mi ngi am ci réew mi nag maanaam dañuy gën di sonn di gën di ndóol. di gën di féetoo gannaaw. te loolu nag état bi daf cee war a gën a sévère. ubbiwaat ay bitik créé ay commerçant teg ay tànk ay commerçant ubbil leen banque boo xam ne moom état moo koy financé ñuy liggéey dañoo di ko versé ñu bañ ci commerçant yooyu bañ cee xool seen intérêt état bañ cee xool intérêt bi ñu xool intérêt peuple bi bu yàggee ñiy dem di jëli ji ceeb ko ci jëli ji ñëw di ko yokk di yokk ci kaw boppu askan bi di ci profité pour un an bu nekk nga mën a rek lu mu gàtt gàtt benn 6 milliards yor dañ sa compte te doo ko soxla te ci askan wi rek nga koy dajalee ah te buñ di xeeb ay ay ay ay pourcentage de. Mhm. ñu naan la fii am na fi quatre-vingt-dix pour cent am na fi quatre-vingt pour cent bu dee ab def nga da ah loolu du xaalis du nangam. du xaalis yow yaa xamul xaalis waaye mhm. quatre-vingt pour cent quatre-vingt-dix pour cent nga am ko nga am ko ci ay milliards milliards ay tonnes tonnes tonnes loolu vite fait benn jour bu nekk mën ngaa mën ngaa xeeb journée ah. moom a gënal fen euh, ay parole bu Bougane Gueye la. waa xam nga mu wax ko sànni xamuñ kan lay waxal nag. waa sama maam daan na wax ne sama yow wax ñu loo ci xam. sama maam daan na wax ne fayeekum fayeekum bor bu jógee. Mhm. wax ju ñaaw te comme njëkk a jógee. Mhm. buñ ko xoolee moo war a fay bor bi dégg nga wax ji. fayeekum bu jógee. fayeekum bor bu jógee. <laughs> Mhm. wax ju ñaaw te comme njëkk a génnee. koo ko war a fay bor bi. mooy maa la yoreel yoreloo ma maa la yoreel yoreloo ma. ñuy ñuy wax maa yow ba dañuy tàng fu saaga njëkk a génne rek wala wax ju ñaaw rek kooku moo war a fay bor bi maanaam kooku moo yoral moo yoral ko saaga wut xaw ma dégg nga ma am maanaam li ma ci bëgg a wax mooy moom ba mu waxee ba léegi Ousmane tontul kon moom du moog Ousmane moog sénégalais yi la mais daa mel ni Ousmane moo njëkk a dal seen kaw non non Ousmane dalut daf ni ah. Ousmane daf ni mhm. nay leer daf ni dafa taxaw grand théâtre ni mhm. dégg naa ba tey tudd tur dégg naa am na ay wax yu fi waaye naka lay benn organ de presse. di ñëwee di maanaam di di dagg ay impôt employé am. bu la waree fay cent mille francs exemple. fay la quatre vingt quinze mille wala fay la quatre vingt mille na la vingt la jëm. jël vingt mille yooyu ci compte bancaire wala ci poosam. lii la Ousmane wax de. loolu nag mooy la sama daan sama maam daan wax ne. sàcc boo ko yootalee rek fayal lamp yi jékki-jékki tarat lamp sàcc bëgg lu leer. moom mi nag bëggul lu leer parce que Ousmane ba mu waxee loolu Youssou Ndour am na télé comme moom moom am na télé. Mhm. Maimouna Ndour am na télé. Mhm. ñeneen ak ñeneen am nañ télé. ñeneen ñu fi war a fay ay impôts bari nañ pourquoi pas mu julli ba génn rek moom jël wax ja moom la ko boppam te dara xewut nay mhm. wax jaarul ci wax ne wax wax ni muy doxalee. moom mu retourné wax loola. beneen bi ci desit mooy moom sax dafa dafa teel a juum parce que milliards yi wax ne mu ngi jaar ci loxoom. milliards yooyu naka lay jaara ci loxo loxoy gor ci liggéey kat bu caaxaanut ci loxo yi ko mën a liggéey nga retourné di am problème mu maanaam fay impôt milliards yooyu naka lay jaara ci loxoy liggéeykat dëgg nga retourné tey war a fay impôt beneen bi ci des mooy pourtant Ousmane Sago gudd de waxagut wax ju ñaaw de li mu wax leer na fay leen impôt yi rek. loolu leer na te nag man nit mënumaa tagg tey suba mu ne suba mu ne damaa bon moomay métti. Mhm. parce que moment ba mu toogoon di ma tagg intérêt moo nekkoon ci man kon moment bi mu toogaat di ma xas intérêt am gis gisatu ko ci moom ci man. Mhm. foofu ngay xamee nitu intérêt ak nit doon nit ku nekkul intérêt. Mhm. Euh, bi ci desit mooy gis nga àdduna li suñ mbokki Baay Faal yi wax naan yàgg baax wallaahi mooy dëgg parce que boo yàggee fekkee dana bëri kuñ doon tagg boo yàggee xam ne kii jarutoon tagg. Mhm. dana bëri kuñ doon xas. soo yàggee xam ne kii. moo jaroon wallaahi moo jar a roy. dana bëri ku ñuy roy. soo fi yàggee xam ne kii maanaam euh, jërut sax xam. Mm-hmm. ay maamam rek a jar xam waaye du moom. dana bëri ku ñuy maanaam ku ñuy euh, euh, tuuma di ko wax lu ñaaw ak def ak nangam boo fi yàggee rek xam ne ka ko doon tuuma sikk sikk waaye du moom. Mm-hmm. ka ko doon tuuma it moo tegi pexe. ànd caag ñoo xam ne seen intérêt bopp kese lañ jiital ngir yàq ko pour seen intérêt bopp jug waaye bu bu bu yàgg bàyyee rek àdduna àtte loolu dafay firndeel ne réew mi dafa bëri woon ay hypocrite yoo xam ne seen intérêt personnel kese lañ daan jaam boo demee ci côté côté côté religieux bi bëri na fi am na ay doomi kilifa diina yu mag yu nekk ci réew mi ñoo xam ne li ñu yor ci ay hectare te mun ko kenn xamu nu mu toll benn nit mooy jógee fee rek bëgg rawale alalam nangam nga sant rek mu jël sa sant woowu utiliser ko nga nanga ko yow pour lan pour ray askan woo xam ne centaine de millions lañ ay jirim ay baayo ñu amut ñi seen nday dee ñi seen baay de ñi amuñ fu fuñ dëkk dëkk ci ay sàkket ñi dëkk ci ay barak ñi dëkk ci nangam yow nga dëkk ca ta doo na doomu kilifa ga xalaatoo dëkkandoor dëkkandoor bi nga dëkk ci suuf xalaatoo xalaatoo xalaatoo di xool sa sa maam sa naf si bakkan rek dem loolu la état bi taxaw pare pour mu jeex te day jeex te nag dañ see jël matukaay yu mat sëkk pour mu jeex xam nga nu ñu si matukaay yu mat sëkk pour mu jeex hmm. Cheikh lañ ànd ak Cheikh Niass ànd na ak ñoom ku ne xam na ne Cheikh Niass patriotisme la Pastef la bokk yaa ngi dégg mais Cheikh Niass bu toogee ci hectare yoo xam ni dañ koo viré ci turam liggéeyu ko moomu ko aw ci yoon bu mu ko war a awee par la force dañ naan ko hee kaay mu ñëw. ñu ne ko lii dañ koy nangu ñaar moo mun a am ñu nangu ko ormal la ngir sa sant ak sa maam bu kenn yëg bu la neexee nag àggal demal nga xalaat ci bu la neexee nag après danañ la convoqué waat boo xiiroo boo xiiroowul yëpp boo ooteeg boo ooteewul yëpp danañ ko nangu delloo ko askan bi yaa xool lu la ci gënal nag. Mhm. am ay homme d'affaires lan mooy baatu homme d'affaires ay homme yoo xam ne nii. liñ sàcc ci ay hectares kenn xamul nuñ toll imagine toi Farba Ngom naka lay mën a dëkkee Agnam ñëw ba ci àll Thiès bi am fi trois cent et quelques hectares misaal mu gàtt rek mi ngi hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ma mën a wax ñu ma mënta wax. Hmm. xam nga Cheikh Yirim dafa mas a wax wax joo xam ne wax ñu ngi ciy soog di wax Ousmane dafa daje ak Ousmane Sonko ne ko réew mi naka nga koy defaree ci li nga wax. Hmm. mu ko ñi a fay impôt ci réew mi rek bu ñu ko fayee normal rek defar mu ne moom bi koy Ousmane Sonko di wax loola gëmu ko woon mais bi mu saytuwaatee ba xam ay euh, euh, euh, étranger yoo xam ne ñu ngi ci réew mi. Mm-hmm. ay naaru libanais ay tubaab ay français ay sénégalais yoo xam ne nii maam ñu ngi fi ñu jël yenn sénégalais yi singile leen di leen fay leen impôt ko carrément te waroon leen mën a teg loxo dimbali leen. Mm-hmm. defuñ ko jël ay francais ki ay naari libanais ki ay nangam yëkkati leen di leen upp di leen jaay di leen nangam ñuy jël seen alal di ko vider seen réew di jëlee seen réew di indi fii di jëlee fii di yóbbu di vider seen réew seen alal ji. Mm-hmm. loolu Cheikh Yérim nee na moom ba mu ko gëstoo. ba gis ne maanaam ñenn ñi nga xam ne ay secteur ñooñu lañ rek buñ fayoon maanaam Sénégal mën na cee baax diiru nangami at. kenn xamul nuñ toll. te ba mu koy wax booba xamutoon ne àdduna dana dana tourné. ba mu bañalaat Ousmane Sonko. mooy li ma la wax sanq ne la ma tëjee foofu li ma la wax sànq ne la nit. Mhm. bëri bëri na kum bañ yàlla xam na ne du la wax lu tax mu bañ ko. Mhm. du la ko mos a wax la ca gannaaw loola rek la lay wax parce que intérêt personnel am kese tax mu bañ kooka. Mhm. waaye du intérêt général Ousmane Sonko ku juddoo ci réew mii yaroo ci réew mii. fekkee Abdoulaye Wade waxuma Senghor ak ñee dañoo sori fekkee Abdoulaye Wade tuuti fekkee Macky Sall tuuti président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nguuram gi ñëw nga fekkee ci tuuti war ngaa xam ne dëgg dëgg dëgg képp ku ko bañ sa intérêt bopp taxawaay du intérêt Sénégal moo tax nga bañ ko mm-hmm. imagine toi Macky Sall mu fi toog fukki at la mu fekkoon ba ka ko daa dans deux ans ka kaa yokkaat double am yaa ngi dégg ba ni muy wàccee mënatu ko wàññiwaat ñiy yëg dans deux mois wàññi loo xam ne Macky Sall toog na fi juróomi at ko wàññi deux mois ñu wàññi ko waxkat yi naan waa non juróom bi mu wàññi jëriñu ñu dara jëruñu la dara mhm. am na koo xam ne juróomi dërëm boobu nga koy xeebal mën na sa jënd takkab jimbo mën na sa jënd takkab kaani mën na sa jënd masi mën na sa jënd yeneen ak yoo xam ne nii mën naa safal tinam ci ci ci mbayen mbayen rek ci si tey mhm. tey ka nga xam ne daan na jënd ay toni toni toni ton ci li ma wax ton bu nekk saako bu ne wala benn mburu mu ne ñu wàññil ko ci juróomi dërëm yow de yaay wax loolu waaye borom oto mburu yi yëpp ay mburu yi mburu yi mburu mburu mu ne ñu wàññil ci juróomi dërëm xam nga yow lan la la maam lew fu la fu la yëf yi dugal ak fam la àgg ak nañ la dimbalee asantuma ka nga xam ne ma ngi koy jëfandikoo. Mm-hmm. lii nag tànk amul rek ñu boolante suñu intérêt yëpp ñun teg muy benn intérêt rek muy intere Sénégal réew mi dem. réew mi du dem mais Maimouna Ndour Faye nee na ñoom ragaluñ Ousmane Sonko. waaye wax naa la ko sànq nee naa la xeex coow bu amee koo gis mu njëkk a yuuxu rek dafa ragal. Mm-hmm. ñu doon xuloo maa ak yow fii. Mm-hmm. ma jékki-jékki xam ne maanaam buñ songooyee nga duma ma. su ma gisee kuy yàdd damay yuuxu ca kaw pour mu ñëw nañu lu ngeen jotee hmm, dëgg la loolu jublu yuuxu ga hmm. pour lu ngeen jotee rek hmm. te bu ñu lu ngeen jotee moom moom ma tàppet muy njëkk a waxaat it waaye kii nangam kii waxoo ko moom maa nanga nangam waaye gars yi xoolal yéen ñaar yéen a far xoolal nangam na balaa waajee tourné yow bu fekkee oto nga yor tànga si oto ba jiitu waaji parce que xam nga ne bu waaji dem ñu lay nokk <laughs> loolu mooy lan mooy coow li lu muy bëri bëri bëri bëri bëri njëkk naa taxaw ne Macky Sall ñoo ñooy mayeen impôt yi na ci Macky Sall wax na nangam ba tey état bi yënguwut waxut faale wuñ leen Macky waxut yënguwut faale wuñ leen parce que mënatuñ koo am mënatuñ koo jot mu a waat ñëw maanaam bëgg a créer lu ñuy wax viage village xaw ma violation domicile xaw ma lañ koy wax ñëw ci kër jàmbur maam xeex ak kër gi saaga ko génne mooma tooñ mooma tooñ amul fet mhm. mooy lan mooy nekk ci réew mi réew mi defala la lu mu defalul kenn portese la jox la sécurité may la ngay xëy di wàcc may la jàmm ak salaam kenn doo dawal oto ci mbedd ay ñu tiim la li am li am ci yeneen réewu Afrique yi ay guerre yooyu amu fi réew mi portese la yooyu yëpp may la jàmm ak salaam yow ngay doo fa yemp da nga ko fay di dund da nga ko fay di dee mhm. waaw loolu moom bi téléphone am moo moo lay xamal na la kon démb ñu doon taxaw di xas Pastef ak Ousmane Sonko yëpp seen intérêt personnel lañ woon hmm. cent 313 digital euh, Serigne Cheikh Niass moom la dalal dofu maam xalifa euh, ñas euh, numéro am yaa ngi noonu affiché bu ngeen bëgg jokkoo ak moom Cheikh bi vidéo Dof ndey bi bi nga ko gisee moom lan nga ci xalaat ah li ci Sénégal rek waxoon naa ko fi yàgg na ba fi ba ba mu fi génnee bu ngeen dem leen ci yenn vidéo yi xam nga sëñ bi. boo ragalee yàlla yàlla xamal la lu bari lu ñëw ci kanam. bañ na bëreet laana laane bi mu njëkkee def génn taxaw ci benn oto saaga senegale yëpp. dara fekk ko ci ñu naan xaritu Amadou Sall ak yooyu. laane lépp lu muy def na ko def gaaw balaa nguur gi dafa jóge parce que heure bu fi nguur gee jógee rek dana gis lu ko neexut. Hmm. malgré nag yéene wuñ ko ko pourquoi pas parce que ku fonk yaayam la. doomu aadama ak noo mën a mel boo fonk sa rek dana am tuuti loo kii Sénégal nag dañuy jaawale ñaar dañuy jaawale liggéeyu ndey ak ndimbalu yàlla buñ jaawale loolu da ngay gis nit tekki ñu ne ndeyam eh, eh, eh, dafa am ngërëmu ndey mhm. ngërëm ne way jur mhm. way jur mën na laa gërëm midi am luy ëpp coo luy ëpp ndimbal ndim euh, ngërëmu waajur muy coobare yàlla mm-hmm. coobare yàlla heure bu ñëwee tege rek lépp loo defoon day effacé wu mm-hmm. yàlla nag bi ci jiitu mooy nga respecté doomu aadama parce que yàlla lépp lu mu bind mën taxaw ni lii laa ci a bëgg yow nga jël loolu salfaañe ko yàlla dee la ci fekk si mm-hmm. wala xadd karab naa bani aadama wa amal naa fil barri wal bahri doomu aadama laa gën bëgg ci li bind ñu ne ko luy firnde gi mu ne moom taal charger ba mu boy mu kii ba mu lekk lekk bu pare na alhamdulilah bi bindal ko ci tiyaaba moom rek laa may loolu doomu aadama rek laa may aussi tamit mu jël mbaal dugg ci jéeri ji muy géej gi napp ci jën yi xool ca ya ko neex lekk ya ko ca mu jaay mhm. pourtant yooyu yëpp ay bakkan lañu am comme yow mais lan moo tax boo ja boo jamee sa moromu doomu aadama la nga def jën ba wala nga def ko xar ma wala nga def ko nag ba heure boo ko defee sa moromu doomu aadama ñu ne nañ nañ dem tribunal lu tax loolu mooy fonk gi mu mhm. kon doomu aadama waroo caaxaane sa bopp ci ay détails ak yu mel noonu. Mhm. bi ci desit mooy alquran daf ne anna nafsa bin nafs. Mhm. wal ayna bil ayni wal unfa bil unf yàlla nee na képp ku dagg baaram dagg leen baaramam. Mhm. képp ku rey rey leen. doomu aadama ni mu toll nga nga man koo jam taxaw manifesté wu publiquement ne maa ko jam kooku dëgg dëgg defendre la du yomb. défendre la du yomb euh, fu mu toll nii nee nañu jàpp nañu ko. Euh, biñ ne suba la tabaski xaw ma bésu tabaski gis nañu ay vidéo yu jógee Cap Manuel la defe naa. Euh, kaso yeeg yooyu noonu boobu tamit ban mbir la parce que du dof ndey ak kaso yi dafa mel ni euh, mën nañoo def transition bi. mooy mbir mu fa amoon rek. Mhm. mbir mu fa amoon ñu koy wax ñu naan mbiru système xam nga système dafa yaatu. Mhm. laal nag ko say laal biti laal biir laal xol yi famille yi. Mhm. mbiru système nag bu fekkee dañ koy sensé ña kaso ya ak ña biti ñoo war a yem képp te képp ku nekk ci kaso ga jàpp nañ ne booy dugg kaso. dañ lay wax jonkanal sumeekul. defal nii atta boo watoo sax dañ lay boo boo amee karo sax dañ lay wat mhm. waaw bu fekkee yow noonu nga duggee ne sa ndey juree nga duggee ca kaso ga ñu teg quelque nga mën a am téléphone mën a uyu may nangam du ci du ci du ca kaso ga mais ñey garde kaso ga la hmm. coow li pour ñu wax ko mu leer ña ca kaso ga dugaluñ fa yooyu ñuy wax na ñoom ñoo ko fa dugal parce que amuñ possibilité dugal ko fa mhm. garde yo ca bunt ba état di leen fay reconnaitre leen teg leen fa ñooy complicité wu ñam ña dugal loola foofa. Mhm. lii mooy dëgg. Mhm. du leneen. Euh, lii mooy dëgg du du leneen am na it beneen mbir boobu defaree na chronique bi muy mbiru Waly Seck ak Pape Alé Niang ak mbiru ñaaxarañ loo mu fekk Jomaay France euh, boobu danga nga ciy bokk position ak euh, patriote yu bëri. ñoom lu seen position patriote yu bari. Euh, mooy ñun ñoo nekkoon ci xeex bi ñun ñu nekkoon ci xeex bi dañ ñu bàyyi ci ginnaaw jël ñi nga xamante ne dañ ñu doon ñaawal bi ñuy xeex. Hmm. di leen jox ay post di leen nommé ay ambassadeur wala yow da nga gis ne ku xas ba falu da ngaa war a boole ñëpp mu doon benn tontu ma nag dama lay laaj. waaw loolu lislaam moo ñu ko njëkk a jàngal. Hmm. am na ku ñuy wax Xaalid ibn Walid lim rey ci jullit ñi kenn xamul nu mu ba mu tuubee retour na ñëw yonent bi def na ko def na ko chef d'armée na ko demal nga jiite armée bi. Hmm. ñenn ñi ci jullit bañ ñenn ñi ci jullit ñi nangu ba ba coow li amee ñëw yonentu bi ne jàmbaar ñu ngi koy xamee ci bu àndutoon ak yow def ak njàmbaar ba àdduna bi nangun ne kii jàmbaar la mhm. ba man Mouhamad may ñaan guddi ne yàlla na yàlla yàlla na ma yàlla na ma yàlla musal ci jaasi xaali musal ci mboolem sama xeet mu bokkoon ci yéeféer yi nga xam ne dafa nekkoon yéeféer gëmul yonentu bi ba pare yonentu bi bokkoon ci ñum faam keroog ba mu retourné tuub yonentu bi da ko bootal xare bi na ko demal yoo la def chef d'armée ah, bu fa bu ñu fa nekkoon ne ah xaali lim rey ci àndul woon ak ñun. nangam nangam nangam nangam est-ce que booba. du am cest mooy li ma bëgg a wax rek mooy mbir musique man sama yoon newu ci. Wally sekk daal benn vidéo am laa seetaan te neexuma mooy bi ko Pape Alé Niang joxe kii bi am na wax yu mu fa wax. wax yooyu du waxu euh, du waxu maanaam ku pare pour defar. ban wax la. Euh, bi mu naan cër rek laa soxla xawma ma bi ak yooyu. waaw maa ko mën a maa mën a yóbbu yëf yi fii. Ah, maanaam ma kenn kenn mënta liggéey te doo ànd ak man. te doo ànd ak man. Mhm, ndax man la ndaw ñi bëgg ndax man la ndaw ñi bëgg. Mhm. ndaw ñooñu bëgg la. ba liggéeyal réew mi jotee dañoo futteekoon di liggéeyal réew mi di xeexal réew mi ñi ñàkk seen bakkan nga toog beru boobu ana wax boobu rek lu laa teg moom ah. mhm. mais kantaa nag Pape Alé def na ko ambassadeur u RTS. kooku ànd naa ci danga may laaj ci ban anam. ci ban anam RTS dafa am budget ni yeneen télé yi amee budget Mm-hmm. RTS état da koy topp xanaa xamoon ni muy toppee yeneen télé yi xam nga loolu. Mm-hmm. mais nag budget RTS pour mu mën a egg fa mu jëm il faut nga ànd caaxaan kat parce que ci réewum caaxaan lañ nekk d' ñu wax ko mu jeex. bu fi Oustaz Adi oote woon fii conférence léegi Waly Seck oote fi conférence. Mm-hmm. Waly Seck di joxe wala Oustaz Aliou Aliou Sall wala Oustaz Iran Ndaw Waly Seck di def ba 10 000 francs kii di def gratuite kii 30 personnes dafay nekk kii réew mi fa la ñu bu fekkee da dafa am budget budget télé national lu mu soxla dafay soxla fi ñi nga ki nga xam ne maanaam bu ootee fu mel ni Sorano ndaw ñu usi ko mhm. suy génn fu mel ni RTS la ëpp ci réew mi di ndaw ndaw ñooña maanaam am na am na lu ñu concentré nañ dem ñu xooli loola mhm. du jëmmi Wally Seck nga soxla mais jëmmi RTS lu ko yëkkati nga soxla mhm. mais du jëmmi RTS lu ko yëkkati soxla mais jëmmi prouvé liñ la jox moom nga soxla ñaara ñaara ngi noonu ñetteel ba aussi tamit maanaam euh, d'accordu ma ne ku àndoon ak ñun rek waruñ koo fal benn cër d'accord na ku ànd ak ñun war nañ koo fal benn cër mais mais cër bu ñu la mënti falit jàppal ne askan wi ñoo la ko fal mais du ki ko fal. Mhm. askan wi ñoo la ko fal mooy lan mooy ah ñii dañoo ma gën li tax ñu gën ma mooy réew mi métti na lool ñu chaque jour ñu mel ne ñun naan kilifa diine yi nañ wax benn kilifa diine waxut. waaye ku mën a nangul ne jomaay war naa mën a dem seeti kilifa diine yi rek war ngaa nangul ne wàllu war naa mën a jël lii. Mhm. xaw na nag dégg ngeen maam déet ku nangu ne jomaay war naa seeti benn kilifa diine mu seeti ko ñëpp toog ci télé yi di ko rafetlu naan dafa dafa yaru te démb ba mu méttee kilifa yëpp dañoo fatu fu jomaay dem ñu ne ko dañoo ñu ne ko dañoo fatu dañu dañoo tëju tey kilifa gum kilifa gum demut sa kër muy man muy keneen ak muy keneen mhm. yaa ngi mer naan lu tax lu tax ñëw fi démb ba ñëw ba ñëw jafee yaa ngi koy dàq tey ñëw neex nga ne lu tax ñëw fi kon nag position booba dafay xaw a niroog position Wally Seck bi kon bu demee seeti kilifa diina yi rek jomaay moo njëkk a def loo xam ne sax maanaam tey bu ñu bu ñu critiqué Pape Alé Niang nag réew du am fayantoo boo jëlee réew da war a rassembler defaraat ña nga an ña àntoon ak yow nga wan leen jikko yu yu rafet yi nekk ci yow nëbbal leen jikko yu ñaaw yi nekk ci ñoom wan leen ne leen réew mi li ma ci am lu ko raw am nga ko ci am na lu ñu doon xeex mooy principe yi mooy lan mooy tey kat ña nga doon xeexal xeex xeexal nga leen bay bëgg a dee faluñu la ambassade xeexal nga leen bay bëgg a dee gis mosoo gis sa bopp ci RTS na nga gisee te sa télé national la mhm. soo amaan soirée rek yu mel noonu daan dem jël benn télé parce que mosoo ñemee waxaale RTS ndax seer léegi nag denk nañ la loo xam ne nii bëgg nañ nga boole defar mhm. nangam nangam nangam après nag li ci des mhm. loolu la mais man damaa d'accord ne lañ ko jox c'est normal ñu jox ko ko parce que d'abord bu dul dara sax Wally Seck sénégalais ñaaxara te liggéeyal na Sénégal lu tax lu war a lu war a tax sax ñu jox ko vraiment mhm. li li mooy sama xalaat ñaaxarañ loo it mhm. sama lem du jamaay mi ko nuyu jamaay bu tiimoon ñaaxarañ loo ñaaxol ko nuyuwul ko jamaay matul président mhm. waaw su xoolee ñaa ñaaxol ko jamaay nuyuwu ko jamaay matul président matul lim doon yonent bi nee na ki gën ci yéen mooy ki xam ñim jiite ñu ko bëgg ak ñu ko bañ bu jëf jotee mu gën a rafetal ti ñu ko bañ yonent bi nee na kii mooy njit lu mat njit kon benn nga noonu ñaaraak ñaareel ba mooy fa ka fa ka euh, euh, ñaaxarañ loo nuyoo hmm. du Sénégal hmm. réewam jàmbur la buñ ne woon tëll réew ma tàkk na daw leen ngeen ñibbi ñaa buy rëcc oto jomaay lay dugg hmm. ñoo bokk fi ñu jëm si kon obligatoire par force mu nuyu ko la sama problème nag mooy lan moo xamal ñaa heure ba fa président di dem ak président ñu mu war a ànd ak ak nangam ak nangam lu jot a taxaw seetlu la loolu dul dara lu dul ambassade yi fi Macky Sall tegoon ñi ci ëpp ñooy doxal seen ambassade yi ba tey mooy raxas ba bañ doon wax ñoom raxas bi sotagut gut ce que du ki mu doon seeti tam parce que kër jàmbur la demoon mm, Abdou Diouf la seeti woon de Abdou Diouf moom Abdou Diouf moom wax dëgg na yàlla personnalité am personnalité Abdou Diouf wees na mm. waaw Abdou Diouf Abdoulaye Wade ñooñu vraiment newuñu woon sax ci. ci yooyu waaw ci ay cinéma ak ay extra extra yooyu noonu. Mhm. voilà beneen bi ci des da wax rek sama xel na yar ci Abdoulaye Wade révélation laay joxe Abdoulaye Wade su ma doon euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye na gaaw seeti ko. Hmm. waaw dafa am lu ñu ma woon barki ci Abdoulaye Wade su ma doon moom na gaaw seeti ko. war nañ ma mu tawat tawat gu metti sax. Hmm. barki bég waaw maa ngi ko ñaanal fan gu dëgg wér nag waaye damay bañ gàcce fekk ko ci na dem seeti ko gaaw. waxee na nag dégg na laaj ku seeti Abdou Diouf mën a seeti mm-hmm. Mm-hmm. mais moom seeti woon na ko laataa élection yi. déet loolu laata la. gisee booy <laughs> booy laaj booy laaj booy laaj dem. Mm-hmm. boo amee war ngaa demaat. dëgg la jublu. am na yeneen nag yoo xam ne du lu du waxu télé. dëgg la am na lu ma sama borom won su ma sañoon nag mu gaaw dem toog ak moom. Mm. Mm. ayca euh, ñaari mbir yoo xam ne yéen la laal yéen mm. këru diine yi. muy déclaration wu Imaam Samb. grande mosquée jouru tabaski ci kanamu président Diomaye ak waa Medina Gounass euh, président seetsee guñu te war nga ñoo seet si loolu dafa mel ni am na kër yu bëri yoo xamante ne war nañuy wax ni ñu ngi naan président demagul Kaolack président demagul fii président demagul faa wala yooyu noonu est-ce que ni mu ko waxee noonu la ko waroon a waxee wala Medina Gounass li fa xew nag hmm. boobu tamit ban jàngat nga ci am bu Médina Gounass moom dama koy dama koy tub di ko jéggalu parce que cooy coowal këru sëriñu jàmbur amu fa nas amu fa nocc xaw ma lu ñu jotee te li xew foofu moo xew kër sëriñ sëpp jeex na foofu du ma fa sori mais bu fekkee lu jëm ci wàllu maanaam euh, imam de grande mosquée bii euh, mu wax tegu ko fenn mhm. nim ko waxee tegul ko fenn waaye la la ko naqadi ba mu wax bëri nañum naqadi dañoo mënta wax waxi la déggin la laaj hmm. li ko naqadi ba mu wax bëri na ñum naqari dañoo mënta wax waaye moom nam ku nam waxee du noonu la ñuy waxee kilifa yàlla nee na bu ngeen wax ak seeni kilifa wala seeni buur. wax leen wax ju nooy jëm ci ñoom. wax leen wax ju rassemble jëm ci ñoom waaye nag ak luñ tuuti tuuti mu lay neex ak mu lay naqadi Bassirou Diomaye Diakhar fay mooy père de la nation. Mhm. loolu par la force la mu neex la mu naqadi la nga bëgg ko nga bañ ko. Mhm. te fa nga koy waxee fa nga taxaw doon ko fa waxee. fa taxawoon ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye mii war laa seet si terroriste la. Mhm. xam nga dégg nga maam déet fa nga taxaw ne ne ne Bassirou war na laa seet si fa taxawoon ne Bassirou terroriste la. Mhm. fa taxawoon ne Bassirou mii lam doon xeex ba war laa mën a seet si tey ba jot ci bu ca dee woon rek safara la jëm. nitu safara kooku moom ngay ñaan tey pour mu seet si la. Mhm. où est problème. moo tax français fay wax moo bu am solo te jàngu te jàngu ma français waaye dégg naa boobu avant parler il faut réfléchir mhm. bala ngaa wax xalaataal ba pare parce que am na loo waxoon lu fi tege loo xam ne ni mënuñ ko ëlbati nangam mhm. beneen ba ci des it nga ne ko ci suñ jumaa ji mhm. jàng ñëw na alxuraan ñëw na dàq sa wax ji yàlla moo ne wa annal masaajida lillahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan jumaa ak jàkk bu ñu tudd kenn ku dul man maa ko moom waaw bu hmm. fekkee yàlla moom yàlla moom jaam ñëpp moom jàkka yeeg jumaa ji kon ëppale woo ci ki ngay wax naan ko suñ jumaa ji ak suñu jàkka hmm. mooy jumaa ji ak jàkka jooju la ëpp lañ ca def tabaxee ko sax jógee wut ci réew mi Maroc la jógee hmm. jumaa ji ak jooju maanaam gannaaw bañ tabaxee ba wax ba pare list bi ni ñee ngi ko yor duñ dof liste bi nit ñee ko yor duñ dof di dañoo dajale xaalis ñii joxe nangam ñii joxe nangam ñii joxe nangam man mii di wax ak yow sama maam Mawlana Cheikh Ibrahima Bañes un million deux cent la ca joxe ca jamono jooja. Mm-hmm. ñeneen ak ñeneen ñoom xaalis bi ñu intere wax taxul may wax xaalis bi mais li tax may wax mooy acte jëf ji. Mm-hmm. kon bul taxaw ne suñ jumaa ji déedéet su jumaa ji yàllaa ko moom bala nga xam ne du sa jumaa nañ ko teg nag yàlla na yéex ba nga jógee fu ñu ne ñu ne sa sa alal ña nga ko teg ña ngay dond ba xam da nga jumaa ji ne yaa ko moom kaay say doom dañuy dond. <laughs> doo ko gis mukk beneen bi ci des mooy ni mu waxee man damaa gis ne kii dañ ko wax loo wala mu am lu mu dencoroon président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour wax ko parce que Macky Sall def na lu gën a pire loolu rey 80 personnes ñëw toog di julli ndoor ak yow te waxoo ko ko boo bàyyee li nga war a wax waxoo ko wax li nga war a wax sa njaboot sax duñ ci ànd ak yow waxuma la ak nag réew mi te nag maanaam ab président bu wonee ak yaru ba àdduna bi nangu ak yaroom yow booy wax toujours del jël say wax di ko sof ci gannaaw yaroom heure boo génnee foofu rek adduna bi yëpp joxañ la baaraam na yow yow nangam yow nangam du ma àgg ci leneen la. Mm-hmm. ayca daa mel ni loolu la woon bu dee actualité dafa mel ni euh, loolu moo ci gënoon a fës. Euh, ñu ngi leen di fàttali ne Serigne Cheikh Niass la ñu dalal dafa maam Khalifa Niass léegi nag mën nañoo jàll ci li nga xamante ne moo gën a yitteel genre Abdou Fall gi moom li fi fi toog yëpp moom. Euh, waaw xam nga ab sëriñ moom kàddu kër gi lay lijjanti moom waaw ah, <laughs> <laughs> wax na dëgg de ndax gis nga fi àdduna góor leen rek la am <laughs> mbégteem jigéen kase amut leneen ci àdduna ak poos yu fees góor mm-hmm. ay poos yu fees lu mu fees fa jigéen ñi nga ko jullil dëgg la kase mm-hmm. góor jigéen rek la am ci àdduna jigéen doomam rek la ci àdduna mm-hmm. doom bàyyi rek la ci àdduna bàyyi dang dangi ba dee rek la ci àdduna dëgg la ni la yàlla rabbee àdduna dëgg la amul leneen mu ko rabbee dëgg la soo amee xaalis yow ko góor ki jabar nga ci njëkk a xalaat ak kër kër gi bu doon sa bopp kase ne nga dem looy ji doo ko jënd mhm. njaboot gaa tax boo amee benn yàlla commencé ubbi sa xel mi nga gisaat keneen ñëwaat dugalaat mhm. yàlla ne la ubbi waatal naa la ñett ñeent bu doy taaral taaral mooy lan man nga takk keneen koo xam ne ma nga kër Masaar yaa ngi parcelle mhm. faf nga sax xeeb sa kër dem di fanaani kër kon góor lu mu am ci kaw àdduna te ak ngóoraam des matut lim doon. Mm-hmm. ñu indi leen solo wu kàddu kër gi pour pourquoi ñu indi suñu solo wu ngóor tuddee ko kàddu kër gi. Mm-hmm. mooy góor bu yoroon ay milliards. na toll nu ko neex na rafet na yor lu ko neex te mënul def ci kawlal dix minutes kooku taxul ñu naan góor tur waa fa ne rek waaye jëf ja fa. heure bu timis bi maree maam heure bu lëndëm duggee fi du commencé naa tëf tëfi. Mm-hmm. parce que moom góor ko. te ay mu ngi ay milliards yor doole tool lu ko neex li tax fit bi commencé tëf tëf yi xam na ne buñ ne ko nijaay nañ tëri ji ay ciipatu lañ koy mujjee ci néeg ba. Mhm. ba du am ko neex. loolu nag dañ leen indil lu koy maanaam traité. Mhm. pour nga mën a traité maanaam ngóora il faut nga mën ñett il faut nga man nga xam doomu aadama esperme ci lan la ko yàlla mooñee ci nan lay maanaam ci nan lay toggee ci nan lay ñëwee. lan moo ko mën a téye nag. maanaam ba moment ba mu war a génn du génn te terewut yow da ngay jëflante soxna ba moment ba nga bëgg mu génn mu génn. Mhm. loolu tànk mënoo ko da doo ko xam. rayal xar rayal nag rayal bay mënoo génn ne fii fi la sperme bi di nekk. Mhm. fii la mbaq fii fii mbaq gi la fii nangam gi la fii deret gi la waaye fii la sperme bi di nekk mënoo ko mënoo ko ci àdduna. Mhm. kon sperme yàlla da koo tënk ci xel. fa ko tënk nooy gën di xalaatee. nooy gën di maanaam amee bànneex ci li ngay séq wala ki ngay séq ak bi di togg di ñëw par ndànk-ndànk mhm. boo maanaam noo gën a xamee mais jigéen noonu ngay gën a gaaw a sa bopp noonu la yàlla bindee sperme noonu ci xel rek la ko tënk mhm. moo tax la plus tard tubaab yi lañ lay jox pour nga mën a yàgg ci kaw jigéen lu lay màndi loola da lay tàqaloo ko sa sago nga mën a def quinze minutes trente minutes heure boo juree sa bopp dem sangu ñëw tëdd jeex na du amati suñ maam yi nag dañoo amoon ay garab yoo xam ne dañoo xam ne garab yii lu ñuy rëy rëy rëy xel moo leen mën a daane. xel moo mën leen a daane nag dafa am garab gu ci nekk la muy jëriñ la muy nangam la muy nangam la muy nangam ngay gis mag moo dugal Saalum dugal Bawal dugal Kajoor dugal Siin dugal feneen nag feneen yaa ngi dégg dugal côté Waalo bii mag mu am quatre-vingt-quinze ans quatre-vingt-dix-sept ans day ngénte ba tey. Mhm. yor ay jabar yu ndaw. xale yi nga xam ne amatuñ 30 amaguñ 30 ans 20 ans mënatuñoo ngént dëgg la yàqu nañ complètement mhm. lenn moo ko waral mooy dañoo wàcc suñu ànd bëgg a topp ànd tubaab yi da jël yenn bion yi da jël yenn mbir yu ñuy lekk ceeb yu bon yi saxaar su oto si extra extra mag ñi nag ci àll ba nag bu ñu amee xam-xam jox ñu ko xam-xam boobu yoon la ñu indi ko Dakar dimbale ci nit ñi dëgg la léegi nag ma ñëw yow ci kaddu kër gi lan mooy kaddu kër gi mhm. euh, Vito ñett yii ma yëkkati moom mooy kaddu kër mooy kàddu kër gi. bul dégg kàddu kër gi wàllam ngóora ba yaakaar na benn pot la de. ñett pot la bii mooy tax nga mën a def 30 minutes. Mm. sunguf la <laughs> suñ liggéey ay tur def ci keng enkaleng doogoo daqaar mm. ak yeneen i mbir yoo xam ne bëgguma ko wax ay sunguf lu yuñ rax la. mooy kaddu kër gi mooy tax nga ma a def 30 minutes doo wàcc kii boo demee ci àllu Saalum ba paa si seen njaq yi lañ koy def bu ñu yeewoo suba teel. Mm. jël seen potu potu kii yooyu potu weñ yooyu nekkeel yu mag yooyu. Mm-hmm. tànq ci naan ba seen biiri fees. ñu takk seen caay dugg caal bi nga dañuy ut dara téye seen jaas utuñ dara lii ma wax la reen yi ma wax la la ñuy dem sàq ji ñoo ko seen njaq yi mhm. dox ba njaq tooy xeb dëkk ak dëkk sept la ñuy dox ñëw tam ay mag la ñuy doon te lañ dox boo ko doxee yow xoox mhm. lu ko waral mooy dañoo xam ay reen bu fekkee nag ne am na koo xam ni daf ni ah man de lool baax na waaye damaa sëy dix ans mënu ma am doom mhm. faju naa fu nekk sama jabar fajun fi nekk ma ne sa ndoxum man yu moo large moo oyof parce nooy gën di seqee ak sa soxna sa ndoxam man yu di gën di wàññeeku. Mm-hmm. soo toogoon benn une semaine rek sa ndoxam man yu dem nekk fa mu nekkoon. dëgg la noonu yàlla bindee góor. Mm-hmm. léegi nag ñu defal la bii nga xam ne dañ koo liggéey ci defar ndoxum man yu ba nga xam ni day far comme jamonoy xale bu góor ba maam ba ngay njëkk yëg ne góor dana am lu génnee ci moom peut-être yaa ngi ko yëgee ci nelaw gént. Mm-hmm. loo maam moment booba bànneex ya nga doon yëg ak bànneex yëg. nooy gën di maanaam enseigné di sëkk ak jigéen du ñaari bànneex yooyu duñ bokk moo tax ñu defaral leen bii am na koo xam ne borom téere yi indi nañ ko dafa am lu ñuy wax tuuña mooy awra bu gàtt day nekk bindin day nekk aussi tamit ci euh, maanaam jongal bi ñu baal ma que am na ñoo xam ne buñ la buñ buñ la jongalee maanaam ñaw bi bu nekkul ñaw boo xam ne ma ñaw bu normal la sa awra bi dafay delluwaat hmm. am na koo xam ne rab def ko koy def aussi tamit dana sëy soxnaam ba ci biir awra bi dafay delluwaat complètement il faut mu foowaat ak soxna si pour mën a sentir bànneex moom tamit dañ laa liggéeyal bi nga xam ne si geresu gëlëm lañ ko liggéeyee. Mhm. rab yëpp gëlëm la yàlla may mu mën a tiim garabu dëj nii ñaay ko ak gémmiñam yéeyu ko te ko dara du ko du ko jam. Mhm. dëj euh, la yàlla may à part li nga xam ne moom mooy yambu. mu mën a dajale garab yu baree baree bari ci benn jour bi lekk ko. Mhm. te dara du ko jot te neefare mi di faj. yambu it moom la yàlla may mu dajale garab yu bari lekk ko neefare mi di faj muy lem lii day faj rab ak yu mel noonu muy neefere gëlëm lii day faj asma ak yeneen ak yeneen ak yeneen muy muy lem. Mhm. bu fekkee nag na am na koo xam ne daf ne ma ah, traite bii de traitement la nee nga dañ koy jël une semaine dama bëgg boo xam ne maanaam sotti léegi gis léegi waaw comme Vito mu demoon Kaarang rek ñu takkal ko soxna. mu ne mënatumaa ñëw Dakar ci diggante bi. Mhm. nañ ma jox bii bii moom ci kaasu attaay nga koy sotti naan mu réagir léegi. ki moom amul tay ak suba gannaaw suba da ngay naan léegi mu réagir léegi mhm. moom pour loolu kese la pour ñëw rek jëflante moo tax patriote yi di ko ooyee gatsa gatsa waaw bii moom mooy gatsa gatsa bi bii moom ñëw léegi gis léegi la <laughs> barke rasulilaay kenn du la yeb sa kër waaw euh, bu fekkee koo xam ne dafa yor lu ñuy wax émurit émurit danay teree góor jugal mhm. danay taxa naqadi deret li tax muy taxa naqadi deret mooy nooy xëyee war liggéey di okkatu di okkatu di okkatu ba sa liggéey heure liggéey passé mhm. client yi waroon a wax ak yow képp ku la ci oo bala nga koo uyu appel okkatu bi ngay njëkk a uyu appel mhm. doo mën a wax sa da ngay naqat deret mhm. émorite aussi tamit baaxul dafay jur ballottement ballottement mooy waral nga toog ci biir nit sa biir bi def xurr di jooy ba da ngay rus te doo xam lan moo ko waral fekk biir bi maanaam sidit bi nga xam ne moo war a jàllale lekk gi air moo fa solo moom kii daf koy faj dafa yor jabet jabet it dafay tax nit maanaam du du am kartan mhm. parce que liñ lay aaye mooy bari. Mhm. dañ lay aaye lu jëm ci wàllu fir yi yoo xam ne dafa saf suukar te fir wi dafay yokk kartanu góor. Mhm. dañ lay aaye yeneen yu mel noona dañ lay aay yenn lekk yi ak yenn naan dañuy dem ba dañ lay jox sa suukaru bopp. moom nag bu fekkee ne dafa da ngaa àgg foo xam ne dafa garaaw wala garaawul yëpp bii moom mooy traité li nga xam ne moom mooy jabet. A la wala type B la wala beneen bu mu mënti doon. na koo xam ne aussi tamit dafa dajale feebar yu bari ci biiram bi. xamul feebar yi yan feebar la garab bi dafay faj vingt cinq maladies ñaar fukki feebar ak juróom. bii mooy premier médicament ci adduna bi muy garab gi. suñ maam aadama bi mu naa bi mu lekkee lañ ko aay ci àjjana. yàlla def ko wàcce ci àdduna. bi ko wàccee wàcce ko Inde. wàcce awaa côté Medinatu Munawwar ñii ne côté Makka ñii ne côté euh, euh, euh, Iran. Mhm. mu dox jëm ci Inde ñu daje ñoom ñaar di wërante ay weer mënuñoo gisante. aadama ba mu wàccee moom ci aw daj la wàcc mu dëkkee ko biir buy métti muy nelaw parce que mm-hmm. lam lekkoon ku ko lekk da ngay dem toilette mm-hmm. te àjjana amul duus bi ko yàlla wàccee foofu nag mu yeewu jaaxle amul kenn ku ko faj xamul dara ci àdduna parce que ndoxandeem la fi bi mu wàccee sun suñ borom yóbbal jibril na ko demal na ko mu toj ci mu toj ci doj bi mu tiim nii def ci ndox mi naan ko bu ko naanee biir bi dana sedd ba mu ko naanee ca sansa la biir bi sedd loolu mooy doj bii ngeen di gis doj bii ressource naturelle la boo xam ne Inde rek la am amul beneen réew sama benn euh, nit bu nekk Inde boo xam ne dañuy jëflante ci ay garab moom ma koy indil kii ñaar fukki feebar lay faj day day raxas cancer bu mu mënti doon day raxas cancer de cœur cancer de foie diabète ulcère ballottement biir buy métti ndoxu siti li nga xam ne moom mooy maanaam feebar yooyu di jar di dal jigéen ñi kyste mooy di niwil biir di réyal biir bi ba nga yaakaar ne kii daa ëmb fekk ëmbul ñu mhm. ngi ko bind fii lépp lu muy faj mi ngi fii nii am na ab daf boo xam ne daf naan ga lay faj mën naa nekk sa kër te doo ko xam mhm. boo waree dee garab galay faj mën naa nekk sax xànq lal ba nga tëdd mu nekk wen ñoo ne war ngaa dee yaa ngi yor feebar nangam et pourtant wen woowa xànq lal woowe boo ko xasoon rek tàngal ndox ba mu tàng dugal ko ci naan ko rek mën naa raxas ba te doo ko xam te yaa ngi tëdd ci lal bi di wuti garab yàlla ñëw nag yombalal ñu ko ne maa farat naa fii kitaabin min shay'in def naa lépp ci alxuraan man seen borom feebar saafara saaf lii saafara feebar laa njëkk bind ci mhm. boo ko xamul nag wëril bay bëgg a dee bu ma la naree rey damay damay lëndëmal say bët lëndëmal bëtu ña lay faj ba doo xam loolu loolu moom mooy liñ fi indi ñu tëjee ci ñaar yi. bii kaaraange la dañoo tollu ci réew moo xam ne nag fi mu toll nii kaaraange dafa war ñu baree baree bare rawatina waa APR yi. nga xam ne ñoom fi mu toll nii ñun bu njëkk ñoo daan daw di làqatu di fanaan ci hôtel. Hmm. dinañu ñu ciy dugg waaye fi mu yàlla ay buur. Hmm. ay waay buur. daaw ci heure bii ñëwuma toog sama kër 30 minutes yu baax. Hmm. barke dama ko ñeme lu yëngu ma yaakaar ne gars yi ñëw nañ fu 22 heures jotee daw naa hôtel. Euh, vidéo toog naa semaine boo xam ne fii laay jógee bu 20 heures jotee ma taal sama oto daw dem Tëngéej te gannaaw Sonadis bi am na benn hôtel bu nekk foofa fa laay fa laay fanaan ji journée 30 000 laay fay. Hmm. du ma nelaw na damay xoolee ba bët sama téléphone la fu 7 heures jotee taalaat naa sama oto ñëw unité 15 ci daara ja ma jàngee alxuraan sama rak papa ba amoon ñes fa laay ne fa laay ne fa laay ne leer naññ ma soog di ñëw sama kër su ma duggee. pour livrer garab ñi ma war a livrer la sama secrétaire bay ñëw toog fi ma jox ko tur ñi ma war a livrer garab yëpp fay samay téléphone pendant trois mois laa a wax Macky Sall jafe-jafe yi mu teg fii yëpp yàlla na ko suñu àq dal ci barke alxuraan. ak na fay sama téléphone daw dugg Gambie laa def. gars yi yaakaar ne saxal nañ la pexe. daa di gaawut Macky Sall ma mënu maa saxal ma <laughs> ko ci am ndongo daara la daan naa laqatu ci ron lal. il s'appelle Cheikh Dias personne ne le voit. daan naa laqatu ci ron lal ñuy eete jàngam fajar. Mhm. ma laqatu ci ron lal laa la wax ron lal ñu may ñu may wër ci kër ngi ci ron lal gi. waaw ngir fajar rek <laughs> waxuma la Macky Sall mi nii moo gën a gën a gën a efficace ci mbiru ngóora bu fekkee yem ci tubaab yi la wala naareel ñoom duñ la duñ naan ay reen ak suuf buñ koy naan seen biir yi daw. Mm-hmm. waaw moo tax ñoom ci lañ leen defaral kii moom boo waree seeg sa soxna 30 minutes 20 minutes avant da nga koy diw ci kaw bopp awra rek bàyyi. day dugg ci biir sidit yi te daf lay maam daf lay daf lay daf lay daf lay soñji toujours daf lay soñji ta doo gaaw jot sa bopp moom kii nii moom moom moom ci kaw awra bi nga diw rek bàyyi. 20 mm-hmm. minutes quinze minutes avant ngay jëflanteeg euh, sa soxna. bu fekkee ku bëgg alal ju gaaw la muy wërsëg xaalis nañoo ñu jox ko jaaro bi képp ku ñu ko jox jaaro bii noppi nga ñàkk bëgguñ see soril nag wala yu mel noona mhm. ku bëgg bayre buñ ko joxee kii moom tamit mooy parfum ismu yusuf bi yàlla dana ko dimbale ci bayre ku bëgg nopp am na fi ku bëgg am kayit am na fi listixaar muy seet li te sëriñ sëpp alhamdulilah yàlla may nañu si may nañu si yu baree baree baree baree baree baree mais ñi ngi ñaanal réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. Bassirou Diomaye Diakhar fay yàlla jàmmal ko dooleel ko kàttanal ko. Mm. ndax jàmm mooy jàmm Sénégal mbégteem mooy mbégte Sénégal te objectif am yëpp mooy jëlee Sénégal maanaam fu bét fu métti fu bon fu ko Macky Sall yóbbu woon yóbbu ko fu raw fa nga xam ne objectif maanaam euh, ñu baax. ñu nekkoon ci réew mi la ñu mel ni Cheikh Anta Diop ñu mel ni ñu mel ni ñu mel ni mhm. ñooñ su seen seen objectif ak seen bëgg-bëgg moo moo nekkoon objectif u euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye képp ku koy xaar yàlla na képp ku koy xaar yàlla na xaddi képp ku koy xaar yàlla na xaddi mhm. ànd ci ak euh, son excellence premier ministre Ousmane Sonko mu sell bi gars yi ba ñu dégg waaw la waa ji waxoon naan xaw ma lan lan bi ngay bañ a dégg di nga ko dégg hmm. waaye Ousmane Sonko mu sell mi ngay bañ a dégg di nga ko dégg Macky Sall nga toog ko dégg nga dem Maroc ko dégg nga dem France mel ni GP wu Macron mu la yónni fu nekk di ko dégg sa gaa yi toog fii ñi ñu war a ñu war a génn xaalis réew mi danañ dégg Ousmane Sonko mu sell mi de mu leen di neex ak mu leen di naq danañ ko dégg wan nag ndogalu yàlla bi ci des it mooy président Bassirou Diomaye Diakhar fay fi may tëjee ak yow man li ma mënta baale mooy 80 personnes yi ñu rey nañ ko leeral yan bal leen rayee yan police ñoo leen ray parce que dafa yomb politicien toog ci réew ñu dénk ko réew mu war a defaram réew jàpp ay sénégalais ray leen retourné na naa sama bopp admissé waale sénégalais yëpp te admissé bi amul kenn ku ci d'accord ku dul moom mi ko def boppam dong la doon admissé hmm. kon nañ rey seen yaay dañoo ëmb neuf mois ou onze mois lañ ëmb seen doom yi ñu judd ñu utal leen xaram tabaski ay ordonnance ñëw xaw a rey seen i baay hmm. neuf mois ñëw xaw a seen yaay yi toqantal lu mu leen dundalee bañ toll nuñ mën a xeexalee seen réew xeexal seen réew ñu rey leen ci Malick Faro lii dafa war a leer lii óor bu leerut lii óor bu leerut lii óor bu leerut sénégalais duñ bokk du bokk ci lu ñu lay pardonné mhm. parce que nag da ngaa àndatoon ay góor di xeex ñu rey góor ñooña dañoo war a leeral lan moo leen rey mhm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayca jaajëfal nañu leen maa ngi gërëm Abdou Fall bi ma fi àndaloon ak euh, Baye Cheikh bi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Euh, vous êtes sur 313 Digital n'oubliez jamais de vous abonner d'activer vos cloches de notification di partager live yi di ko aimer te xam ne 313 seen yëfi bopp la kon nekk leen ci jàmm ciao